alaykum bokk internet yi dalen ak jamm ci Sport 220. Real Madrid dafa match nul ci match bu ñeek ci Liga defending champions tay ji lañu doon door sen campagne ngir défendre sen titre nak dañu tembo sen digënté ak Real Mallorca da ko fekki won dal di match nul ak mom ben ak ben match bo xamne ne day xawon na melni lu bëggoon yomb ndax Real dañu téla duggal ci fukkeeli simili ak ñet Rodrigo Goes mo marque bit bi nga xamne am nañu ko ci 13e minute Muriqi mo ñew égaliser ci 53e minute kon melni jogante gi daa mujjee sax jafé ci ñom te Real Madrid fa fan yi rek la gagné loolu nga xamné moy super coupe d'Europe 11 bi nga xamné sax mo titulaire ci match bobu tay ji même 11 mom la ki di Ancelotti daldi indi wat attaque bi ñu am fa ki nga xamné moy Kylian Mbappé Vinicius Junior ak ki di Rodrigo waye nak ñi di wa Real Mallorca am taxaway bo ama am solo défensivement dañu taxawon li bokko na ci li nga xamné ne dégg nga maam moo ñi di Real nak ñi di ñu daldi am li nga xamné moy ñetti pogni Rodrigo bi nga xamné mo duggal bit bobu mom niki david mo ubi won ci xi manam bit bi ñëk niki daw ci sonop daw Real Madrid mom moko duggalon ren ji encore mo dugal bit bi ñëk fan yi leen di wax ne yenn taskatu xibaar yi tàmbale nañu koy fàtte gannaaw bi nga xamee ne gisoon nañu ne ci li nga xam ne mooy super coupe d'Europe bi dugalul paasul ñu gisoon kii di Vinicius Junior voilà Bellingham Kylian Mbappé ku ci nekk voilà dal di cey sa bopp kii marqué ñi la def ay passe dégg nga di titre di ko fa bàyyi waaye nag moom fi ne nii commencé na wane xarañteem ndax tey ji benn bit bi Real Madrid am mooy ki nga xam ne moo ko daal di doole bi le moo tax kat bu ñàkkee match ñàkkul sax bu match ñu bokk wala day bari ki nga xam ne nag mooy Carlo Ancelotti mom daal dinay wax ci mbir mi mu ne daal li nga xam ne moo leen ñàkkulo mooy équipe bi mel mom ni équilibre moom amuloon ci jogante gi wala nee na daal moom dese naa kontaan daal ci li nga xam ne mooy performance bi nga xam ne jot na ko gis tey le ndax moom gëm na ne mënoon nañu am résultat bi gën bi nga xam ne tey ji am nañu ko moom loolu la jàpp mu ne nag jàngee nañ ci match tey bi lu baree bari mu ne match tey bi day njëlbeen la rek waaye jàngee nañ ci lu bari loo xamante ni gisoon nañu ne ëllëg mënoon nañu indil problème tey ji jàngat nañ ko loolu pa bi moo dal di wax di Carlo Ancelotti nekkul match nul bi képp rek waaye Real Madrid dañoo am beneen xibaar boo xam ne neexul ci ñoom mooy ki nga xam ne mooy Ferland Mendy dafa am carton rouge waaye booba sax de jongante gi daanaka jeex na moom Ferland Mendy dal di am carton rouge voilà rouge direct la nag loolu nekk xam ne day jàpp nañ ne beneen mbir la boo xam ne beneen jafe-jafe lay door ci défense su boobu di Real Madrid moom nag défensivement ku taxaw la donte yeneen jafe-jafe ñi di waa Real xëj na ci seen match yi di ñëw lu mooy loolu nag danañ wax ci Manchester City bi nga xam ne tey ji waxoon nañ leen dañoo door ñi di waa Chelsea Football Club seen coach bi di ki nga xam ne mooy Pep Guardiola dal ne addu jëmee ci ki nga xam ne mooy Oscar Bob di seen gone gi nga xam ne dafa am blessure fan yile voilà gannaaw bi mu defee précision bu am solo moom nag dal dina xam ne ne kii di Oscar Bob janvier lañu koy séentu nee dal Oscar Bob moom jàpp na ne film janvier rek lañ ko mën a amaat voilà gis na ne nag gune gu ama am xarante la ba nee na victoire tey bi nga xam ne Man City am nañ ko sax moom lañ ko dal di tuddee moom kooku di Oscar Bob voilà ndax nee na kat kontaan nañu lool ci li nga xam ne moom la fi jot a def te nag bis buy amal retourantam dinañu am li nga xam ne mooy mbégte bu baax a baax ubbil ko bunt yi tax ko am xarañte la voilà janvier la wax ne daal ci la koy séntu loolu nag xaw na yàgg ay weeri weer la fileeg boobu Napoli daal dinañu am déggoo seen digganteeg ñi waa Benfica ci transfert kooku nga xam ne mooy David Neres war a jógee foofu nga xam ne ca Benfica brésilien ku am xarañte la jamono bi ne nañ xam ne moom ca Iran la dem moom nekkoon at yi foofu la nga xam ne mooy ca Villarreal voilà jamono bi kon nee nañu dem na ca Iran foofu la dem ci première division signé ci benn club boo xam ne ñu ngi koy wax Sepaham SC foofu la nekk voilà ca Iran jamono bi foofu la daal di moom ki nga xam ne moom la ñuy wax Nzonzi